Bienvenue sur Salam Vision. sëriñ ba dafa borogoon rek wax ko tegtal ya fa boroom sëriñ ba woon ko la fa moom mu xam ne ci ba joxe ku soobu far ba jiitu ba ba ab ko sa leen léeg-léeg bu rëy di war na leen sëriñ ba ba taal léeg-léeg nga bu xeeral nga ba yéen yéen doon liggéey fanaane ru jaayee fanaane fu leen xali janaan le kurkuraan maa fi xewan daawul doxi yet dooli jeey fanaane roon jaayi dolo fanaan kuraan xali janaan le kurkuraan Cheikh Bamba nu fadiloo Cheikh Ibrahima nu fadiloo ku xam ne faane fadil waaw kon ak mu jëm dafay torox Cheikh Bamba am na mbësir Cheikh Ibra am na mbësir ndax loo ca dem lekk ba suur jàngal ma pexe yi doxee Cheikh Bamba am na waaye nan gaaya fa nekkoon xam nga yaa ngi ci tool yow mi ñu may ku fayakoon yow mi ñu may ku fayakoon yow mi ñu may ku fayakoon daawe ñu ku fayakoon de fan nga nu saa yi bu wér boole ci baati bu gër boole ci ruuy ak cër jëmale ci cër boobu yàlla bu bi Mustafa si biir yàlla wati xalilika Ibrahima yàlla wati kalimika Musa صالح خضر وبصهيب وبالفاروق ثم بسلم نورين سمامي سبحاني الله من معالم اسم خلمي محفوظ ثم jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni ñu ngi ànd ak yéen booba léegi ci Salam Vision Euh, tey nag euh, ci ginnaaw bi ñu màggalee màggalu Serigne Fallou ba noppi euh, ñi ngi toog nag ak ki nga xamante ni moo di Serigne Cheikh ummi mbake moom laaj fallu Mbacké sëñ bi mbake ginnaaw bu ñu la siyaaree di la ñaanal jàmm ju bëree bëri te di ko sàkku ci yow ginnaaw bu ñu màggalee sa màggalu waajur gi démb muy màggalu Kazu Rajab ku ne xam na ni bis bu yàlla sàkk bu ñu màggalee màggal gi ba pare am na cant goo xamante dañ koy amal fii ci euh, buntu kër bi euh, ci kanam tuuti fa lañ war a jëm waaye yooyu yëpp nag bëgg nañu tey nga fàttali ñu tuuti rek euh, ci sa waajur yow nga xamante ni moo di Alaaji Fallu Mbàkke na am mu am. maa ngi nuyu ñëpp rek mboolem adduna bi rek ak ci ñuy seetaan bi leen jox nuyoo ki nga xam ne moo fi toogal Cheikhul Khadim muy Serigne Mountakha ak mboolem njabootu Serigne Touba gi rek di leen joxam nuyoo Serigne Amdi Fall mi nga xam ne moo toog jotaay bi Cheikh Ibrahima ak mbooleem fu sëñ Tuubaa def dara rek di leen jox suñu nuyoo suñu sëriñ sëriñ Abo moom Cheikh Mamadou Fadal di ko jaarale ci sëriñ Bachirou mi doon jawri ni kër gi ak Sibdu Fata mi yor kaddu gi dafay tollul nag loo gis lu ne rek am na lu ko waral euh, ci gàtt gi rek mooy mbir mii dafa am dongo yoo xam ne nii samay mbokki taalibe lañu maa seen jawrin ñu dëkk ñu dëkk Thiès yàlla dogal nuy bu ñuy màggal si dañuy ànd ak njabootu soxna mambal Balla man sama waa ña fa nekkoon bëri wuñ matu ñooto ñee tam waaye ginnaaw nag ñoo bokk sëñ Fallu bu ñuy màggal si ànd bu ma saa dikk nag ñoom da bu ñu wàccee kër Mambar da leen di indi sama kër ma ne leen bu ngeen dikkatee dee leen fa toog la ngeen yoree ku si ñëw dee leen ko ko jox maa ngi moom a ci yem te maa ko war a yor buñ def buñ ko defee ba ci suba sa nag bu nit ñibbi fi la ñuy jaar waaye dañ fi fekk njaboot gi fii nag màggal ay ay ay ay ay bagage buñ jëkkër yi tàggoo nag ñoom ñu ne leen kon nag kat yéen bala ngeen dem dañ leen di teral ndax yéen sant nañ leen waaye fële ngeen newoon nga fa neen fii ne yéen lañ fi nekkaloon kon nag bala ngeen dem da di naan café wala def nangam nangam nangam nangam sëñ Tuubaa ci boppam fii laa nangoone amul tànk ginnaaw tànk kanam la dafa dem ba fi ne léegi gileem la ñu rey tey teg ca teg nag te bàyyeegunu ñu ngi yeneen yu sew yi nga xam ne moom lañ bëgg boole booleeg bâche bi li ci des nag mooy li ma am ci magal gi laa bëgg nag kenn ku ku jàng ba noppe rek ma jox la ci sa wërsëg ndax moom laa mënut a fay jamono nag dafa toll foo xam ne lu xew rek mët na cee wane waaye ba ma sëñ bi boole ci boppam laa noppi woon dafa am genn góor gu ma doon ñaanal barki déwén ne ma yaa nga yàlla na nga gisanteeg sëñ Tuubaa ma ne ko fu ci fu ñuy tase mu ne ma ne ko moom bu xamee ne man xam a murid laa rek dafa doy sama digganteeg moom waaye nag ma jéem a gis rek wala may gis Sëñ Tuubaa moom moom na xam ne murid laa rek foofa laa toll nañ xam ne daal woote bii njaboot yi ñoo ko def waaye bañ koy def nag seen moroomi njaboot lañ doon teral far mu toll fii rek kon nag du wane du bëgg daal ra ndax coono ma metti na ndax li ma ciy dañ moom xaj na ci lépp waaye du ma ko def nag ginnaaw ànd bëgg nañ ko may ànd ak ñoom ba fu mu yem rek neex ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp li ci des nag mooy kookee moom moomu amut moom lañ amut fayam ndax bi sëriñ bi defee waajee màggal gi ba woote ko ñun ñëpp dikk nañu liñ fi jàng ci alxuraan rek mën naa yor adduna bi man sama kër gii rek ñetti téeméeri kaamil ak ñeent jàng nañ ko muy ñaari daara yi nga xam ne ñoo may jàngal alxuraan fii lañ ko tëjee kon du man dong waaye noonu de sant nañu mënuñu koo fay nag waaye liñ koy mën a fayee mooy jërëjëf rek waaye ñu sant dongo yi nag ci ñi ma war a waxal yoruma baat bu ma war a diglee yoruma ki kàddu gu ma mën a waxee waaye xol bu sedd bu ne lu ne mën na caa génn ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñépp ci xam ne daal lii moom xawma lu mu doon man mi man mi koy def sax waaye nag sëñ Tuubaa mel noonu yàlla noonu yàlla taxaw te defal ñu jàmm jataay ba sëñ Fallu daa toog sëñ Afi Ñang laa yaakaar ne moom la yàlla barkeel rek bëgg koo def muy tay rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, alaaji euh, Cheikh sum siñ Cheikh Oumy Mbacke mu Serigne Fallou kaddu yi am na solo trop bu ko defee rek ñu jox keneen ci euh, mbokk yi sëñ Mor Ngiraan sëñ Mor Ngiraan bu Mbaye Mbaye Ngiraan sang bi ñu ngi siyaare bu baax a baax ana lañ yeen kaddu rek nga mën a dolli ci li nga xamante ni moom la Cheikh bi wax. waaw xanaa jaar ci moom rek siyaare mun Muntaxa siyaare sëñ Abo jaarale ko ci moom moom sëñ Cheikh mi ñaan sun borom yàggal ko te wéral ko. Euh, jataay bi junj ko mooy cofeelu sëriñ Fallilou ci sëñ Touba jeex gum jeex takk ci moom ba tànnut nekk doom juy bëgg a baayam walla ab taalibe bu bëgga a seex moom daal danet dafa tànn nekk ci biir sëñ bi fu sëñ bi jëm yóbbu ko loolee nag sëñ ku ne xam na ne ku ko liggéeyal mu fay la foofu mu àggoon ci sëñ bi nag ci la ko fayee njabootam yii te sëñ Cheikh mii di ci kenn kon bis bi li ko lal lépp cofeel képp la alxubbu xayru maali saxsin wuhiba wu ka misli mil il ardi sahaba sëñ Tuubaa dane cofeel moo gën adduna ñu duy ko ak or jamaa ba muy laal asamaan ñu jox la ko cofeelu ko ëpp doole kon bis bi cofeel rek la santaat yàlla itam ndax al isra wal mi'raj sëñ Fallu ci boppam moo ko doon màggalal boppam moom nag sëñ Fallu lay màggalal tey te it dégg nañ ci ne ci cosaan li ci ab jigéenam la jaare loolu nag day tegtale la li sëñ Moussa Ka waxoon ne eh, jaan ju góor ak jaan ju jigéen dangar ya lugukat ndax lugukat xàmmee na lañ ci jat yi jaan ju mu ci doon soo ko lugul mu rey la ne ku xeeb jigéenu Bàmba doo am yàlla ku ne xam ne ne soxna Maam Bara jigéenam booba xeebu ko ndax ànd gi donga yi doon ànd ndég nga ni ko waxee ba mat oto ñëw ñee nar a des fa ci moom ñuy waa kër soxna maam Mbar war a des foofa waa këram war a ñëw fi mu ne leen déedéet toog leen foofa la ngeen am ànd leen kook moom ndax la ngeen fay def man ngeen koy defal ba ñu noppee ñuy ba noppi nag ñoom ñu ànd ñëwaat nag di sant si sañ bi kon loolu moo moo jur moo jur yëf yi maanaam mooy sabab bi mu amee isaa araada allahu amran hëya alawu asbaaba kon loolu mooy sabab bi waaye gis nga tey li ci xew te kanam la jëm ndax sëñ xultu wa ayamis darat umusi wa fostu bil qaamusi fil si waaw sama tay ju day xeebloo sama démb kon Sëñ Tuubaa léppam kanam la jëm kon dañuy ñaan suñu borom yàggal ko te wéral ko yéeneem yi ak fa mu ci bëgg a àgg moom sëñ Cheikh mi mii suñu borom bàyyi ko fi ci barkeb sëñ Tuubaa barkeb Cheikh Mamadou Fadil ba mu àggale ko fa mu ko bëgg ñoo ngi leen di siyaare bu baax di siyaare nag waa télé bi di lam Fall di ñu ñu ràññee ci seen taxawaay bu rafet di ko jaarale sëñ Ibrahima Guèye mii seen directeur du programme sëñ Aliou Thioune lii jumtuwaayu sëñ Tuubaa la bu yàgg boo xam ne yàgg naa taxawee liggéey yu mel nii ba léegi mu gën a yaatu lu waaye lépp nag sëñ bee nangu seenub liggéey rek kon noo ngi rafetlu bu baax a baax eh, kàddu yi ak déplacement bi ci turu sëriñ bi jërë ngeen jërëjëf mbokk yi jërëjëf kon mu nga noonu eh, jërëjëfati jërëjëf eh, mbokk yi ba tey rek ñi ngi fii ci kër sëñ Cheikh Oumy moom sëriñ Fallou Mbacké ñi ngi toog nag ak ñenn ci njaboot gi xam ngeen ni nag màggal gi démb la waaye saa su nekk rek euh, moom suñ Cheikh Oumy dafay faral di amal ak cant euh, bu ñu màggalee màggal gi ba pare euh, ñenn ci ñi nga xamante ni bokk nañ ci sëti Serigne Fallou yi tey gis nañu njabootuk Serigne fallu heure bu màggalam gi yegsee bés boobu noonu ni muy nekkee seen ab bés tey ci loolu noonu lañ bëggoon ku tedd ki nga am tuuti rek loo ñu ci fàttali ci Serigne Fallou ak bés bi fonk gu nga xamante ni ak njabootoom fonk nañ ko ko. waa kay jërëjëf sëriñ bi maa ngi lay nuyu bu baax. di la siyaare bu baax a baax noonu nga ko waxee noonu rek la demee ñoo ngi nii biir kër Serigne Cheikh mi mbakke moom Serigne faliloo ci ngont mi nga xamante ne moom lay defal sëriñ faliloo bis bi nag dafa mel ni bis bi sëriñ bi dañu cooy dimbali ndax ni mu ñu ci mooy bisu màggal gi bu masaan a jot Serigne Fallou day ànd ak Cheikh Modou Bousso daal di dem Daaru Salaam gi mu ganee jamono fa la ñuy fanaan. nekk ci seeni i xeeti ibaadaat waaye bu ñu xëyee nag Touba gi la ñuy yendu si bu ñu yendu see Touba kër sëñ Afe la ne sëñ ak sox ak sëriñ Falilu ñoo bokk soxna wa Buso nan la fa sëñ Fallu daan nekkee di waxtaan ci gaañu baax ñi ak rayaan mi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko bis boobu nag moom la sëriñ bi jël tey jii woote ko di ci delloo njukkal sëriñ Falilu ñu ànd ak taawam bu baax bi di Baye Galas Mbacké Baye Galas nag moom kenn ku nekk xam na ne li nga xamante ne muy yitteem di pas-pasam mooy ndigal rek moom demul fenn bëggul dara lu dul nekk ci wetu baayam rek su ko baayam joxee ndigal mu fas yéene koo jëfee kon bis bi daal mi ngi nii ñëpp a ngi ñëw ñëpp ñi ngi ñëw ñi ngi nii di dënale bernde yi ngir taalibe yi xewlu buñ xewloo génn ci biir baas bi ànd ak sëriñ bi ak njaboot gi fas yéene sant sëriñ Falilu loolu daal mooy soloy bis bi jërëjëf waaw ñoom sët ñoom taxawaay bi ñu am mooy li ma la wax léegi rek ci Baye Galas Mbacke moom sëriñ Seexu mi Mbacke moom sëriñ Fallu mooy ñoom bis bi bi leen ko sëñ bi joxe ndigal ba tey saa bu ñëwee ñoom sët yu sëñ yi ak sëti sëriñ Fallu yi ñoom ñëpp ay taxawaay yu am solo lañ ci am taxawaay yu rëy lañ ci am taxawaay yoo xamante ne bëgg nañ buñ noppee rek sëriñ bi ne leen ak te incha allahu taala ñoom sëti sëñ Fallu yëpp ñoom taxawaay boobu rek lañ taxaw te loolu rek lañ ci jublu mooy li nga xamante ne noonu la leen sëriñ bi joxe ndigal li mooy ñu taxaw gan ñi taxawu dongo yi taxawu lépp loo xamante ne kat. war na ci bis bi te bis bi nag li ci ëpp solo te am ci solo mooy sëriñ bi da koo utal cëslaay mooy jàng alxuraan jàng xasida tudd yàlla waxtaane baaxul sëriñ Falilu loolu mooy solo bis bi noonu rek la sët yi taxawee wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf mu jërëjëf mu nekk sëñ Fallou di taawu sëñ Cheikh Oumy moom sëñ Fallou Mbacké Euh, kon mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon euh, topp euh, mi ngi nii ñu xanaa ñu lay ñaanal rek balaay sa yàlla sa borom gën a guddal fan wi wëral cër yi bàyyi la ci suñu kanam ba liggéey bi nga xam ne nii moom nga namm ci say waajur yàlla sa borom may la kattan boo ko àggalee mbokk yi ñuy topp ba tey naa leen ñu ngi ci kër sëñ Cheikh Oumy moom sëriñ Fallou Mbacké euh, ba tey rek ci gan yi nga xamante ni déplacé wu nañ fu nekk ci réew mi kii nag ñu jàkkaar lool euh, Gambien la moom mi ngi bàyyi ko ba Gambie euh, nekk taalibe sëñ fallu Mbacké am loo xamante ni dund na ko ci digganteem ak sëñ Fallou ba tey mu nekk taalibe sëñ Cheikh Oumy yëkkati doomam jox ko sëñ Cheikh Oumy mu nekk fii ci kër gi di fi jàng nettali nag ci làmmiñu borom mbokk maa ngi laa siyaare waaw Fall ziar naa la bu baax a baax buñ baax. mais la bëggee tey euh, lan nga ñu mën a wax ci euh, bésub sëñ Fallou bi nga xamante ni yaa ngi bàyyi ko ba Gàmbi euh, nga ñëw fii ba pare jël sa doom jox ko sëñ Cheikh Oumy mu koy jàngal. waaw xanaa kontaan rek bu ma yàlla boolee sëñ bi waaw lu ma saaku la woon si suma ma gis ne lu ma saaku yàlla defal na ma te loolu bu mu ba léegi tawféex laa si gis. waaw loolu moo gën a tax ma ñëw teewu Kazu Rajab bi ndax suma doom luñ wax la Olof Njaay luñ wax doom daa ne waaye jël lu mel ni sa doom dënk ko sëñ Tuuba loolu dara gënut ko si àdduna te xaw ma ñëpp nag waay suma sañoon ñëpp mel ni man waaw ku sa doom jël ko dënk ko sëñ Tuuba loolu tawféex la ndax man bu may xool suma côté suma papa sax bu ma jur moom Tijaan la. waa ku bëgg sëñ bi ndax bu ma sëñ bi seetee Gàmbi. woo na sëñ bi naka ne suma njaboot bi yëpp a ngi sëñ loxo. ñoom yëpp waa kër sëñ Touba la. te loolu jëmu ji ko waral mooy Seera Faal dama tëddoon gën di Seera Faal. naa ne yooni murit bi moo ma si andi. di ko sant. waa di gàttal wax bi fii rek. ndax xol bi tooy na. mais sa diggante ak say seexu bi daal. du ma la wax dara si sëñ bi because leen it waaye mën na bu korek kontaan rek laa mun a wax sëñ bi ndax doole jotut gannaaw noonu waaw yàlla xam na loolu mais tawfeex waaw lépp tawfeex tawfeex lépp tawfeex ay jaajëf Gambien jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom Gambien la mais taalibi sëñ Cheikh tàmbale liggéey bi sëñ Abdoulaye Loum yaa daan ubbi liggéey bi kon ñu jox sëñ Abdoulaye Loum mu feeñal yéeneen léegi nag ngeen bàyyi xel ne waxtu wi sori na te jàngkat yi dañoo bari kenn ku ci ne day feeñal yéeneen na solo lool mun nga dégg de sawaay bi ñëwee waayu keñee waaye sawaay bu xat jëm feneen alaaji sëriñ Cheikh Oumy Mbacké Fadilou jàmbaari sëriñ Fallu bu ko defee dañuy wéer ba tey wasib bi aani xaayatin ijlaaluhu نسي مكاتبي وتمر كلها يا خير في سبور جلا إلى مساع الصادقين الأولين وبي مجعلي من المفضلين لأبيهم ما لا ينال سرمدا سوى الذين بايعوا محمدا لو تبي الصلاة وسلاما بهم كما بهم جل الظلاما حبيبهم وبهم آمالا واكتب بهم للقرب والكمال علي سلي ولتسلميما ونم علي سفر بهم لحق بناء فيك بالمختار وعلي وصحبه الأستار أنت الذي متى تقول للأمر كن يكن فكون لي مالي لم يكن كرزي اليوم بكنكم يا قديم ولي أبي سعادة تدوم لأبي كوني ساسلاني في السر والهلن والفراغ لحبي ما فاقتني ضايعا وباتنا عبدا خديما تاهرا فكرتك اللهم انت الاكرم والنافع الكريم والمكرم يا الله علمتني حفظتني سلمتني أحنيتني وصحتني كرمتني قلبي وأوزالي معا وديعا لك فسني من بديع دعا يا سيد بحرمة الأمين وآله وصحبه رب العالمين يسر به وبهما هم عليه يا مولي التحكيم والتعمير ربي عليه سيد قلت سلمي بهم وبسر به كل مسلم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الجزاء الإنسان ذو القدام الحمد لله الذي جازي من أحسن بالخير والمفاسد وصلواته على الكعاب وآله وصحبه خلدان هذا وإن اليوم ذو رسول محبة لهؤلاء إساك قلت طالبا من الكريم جزاءهم بجار سرجاع العظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا صل على خير الورى محمد وآل محسن بعبده وأمن صلابي وسلام المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين وقد أوى إجل فينا في قمتي وحبلهم ما راموا وسطهم الإيمان والإسلام والفتح والإحسان واستسلام وجازي عني بالغفران وبالكرامات وبالرضوان وجسرهم إلى الهدى والخير وتمهم حنيرنا والدير واغفر لهم كل لخن وسنب وحبلهم محن صلى الخلق وكن معين على أماره الدين والدنيا مددور ولا يحزن لما قد أجر في السر والجهر فأنت الأكرم وافتح لي في الحرام فآه يسيل عنهم دنسا وخبوات وابلهم سعادة وسم خلابهم إلى ذات بالعلم والعمل في الأوقات بجاي أفضل الورى محمد وحق سهر رمضان الأمجد وحق آله وصحبه جميل وحقق كل سلم عادتي وتي وسلم عليه ثم سلم وآلي وصحبه وكرم ما دامت خدمة سلم إلى سعادة وللنجاة المولى حامد شهدوا لي هدم التوجيه مكارم الأقدار من جكسس لي أبدا مع الكدر إلا يوجه كريم باقي ذو الأرضين السكبي واتباعه ما رمت منه بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يسمى سيد لي ربي بأن يعبدا له خديم للنبي ويمدى هدم بنيته أزال الله يحصي الذي نازعني الإله دون مكاتب العبادات تقربي كل المزايا جمعا وجه الذي يحبني يبغي الله يوم وجوه سحدا تبيض أجر الذي ناساني ولم يغار سقاوة تدوم في أم الكتب ليبان أن المنتهى وسيرتها صلى عليه واهب الوسيلة يجبني عند مليك مقدرا كل ولي للجنان يبتدي بخدمة النبي الأولياء فلي موردا مفيد نيليا كرمني الكريم والمكرم بجاه من هو النبي المكرم ربي يا والمطار وحمية كليتي أستار من لم يوافقني في الذي نفاه ربه إلى ما لا هداني الهادي فلا أدل فمن يوافقني فلا يدل هنيمان سوى رداه الأكبر باق أتاني منه قير السلوي إلى سواه كل من عاداني بصرف باطل سكره عاداني ما دراه سكره ليبي على لجادي الباقي بما لا ينفع كما السرى مني مبيعا ينفد كتاب ربي رفيق أبدا به كفاني الله من لم يحمد سلامة الذي يدوس بالعلياء وبالنبي بيد من المنفعل سكت من لي لا يوجه كذا في أبد وخاد لي بسر الخدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin addi borom Tuuba ci barab bi ni nga xam ne rek noonu la ko baaxoo defee yàgg délégation bi daal àndal yëpp bàyyi ko Pikine yal na yàlla defal tawfiix barke Sëriñ Fadi sëñ Alaaji Sow bismillah kenn ku ci ne rek na ci feeñal yéene mu gàtt ndax guddi na ba noppi

الله Seydina Muhammad Seydina Muhammad محمد رسول الله ونبيت أن رسول الله بصرني والبصر عند رسول الله مامول أنبيت أن رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله أنبيت أن رسول الله بصرني والبصر عند رسول الله والبصر عند رسول الله رسول الله مامور على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله على نبي الله بهجة الرجال وزينة النهاية من مال مجال مناك الله التي خلق آدم موسى يوسف محمد ثم علي وسليمان على أوال نورا وسليخا قولا خديجة للمستوى للمستوى خديجة للمستوى آخسة فاطمة بلقيس زينب القضاء سقى الله رب العرش آمن ذو خبرا بحرمة ابن الخير من ماء كوثرا أفاق جميع الفيل من كل جانب أفاق جميع الفيل من كل جانب أفاق جميع الفيل kulli janibin ila baytika alma'mur ya rabbi was-samaa afaqu jami'al fiil min kulli janibin bi hurmati ayati lillahi wa sawwara asfa'u min jannati adnin wa mawa wa fil khuldi wal firdawsi wal ma'i kawsara adama utuba adama utuba summa dari manani ودار السلام يا إلهي نوير خبرا ودار السلام يا إلهي أدم بصرها سخر بنار إلهي ببسملة بماء واللبن ثم أذل وخمرا وحرمتي من الخير آل وصحبه أبو بكر صديق فاروق مرا وحرمة النورين عثمان سلاق أبو سبتين علي دلا وحرمة قاسم ثم طاهر وطيبات وحرمة إبراهيم والكل نورا بحرمة الأنبياء وثم الأولياء والأتباع وثم العلماء الآزرات بحرمة مالك ثم شافي وحنفاء وحرمة ابن حنبل سقاه بكوثر أفاء ببيت الله ثم المدينة وبالبيت مقديس ثم البيت المأمور بحرمة توبة ثم دار مناني ودار سلامي يا إلهي نوي الخبرات أنتم أمامي أنتم ورائي أنتم يميني أنتم شمالي أنتم أمامي أنتم وراعيات أنتم يميني أنتم شمالي لأنتم تحتي أنتم فوقي وأنتم كل يزيد فوقي عني فما بي من التذبذب وعدم الحياة وسوء الأدب بجاي زيد المختار وآله وسابه الأخيار أزكى صلاة الله والسلام عليهما هم بالاقتتام دام للرب الحمد والشكر كما دام السلام على من اغتمى يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم الخط الأمان بك علينا وأدام النعمان وكلما سقت إليه خانا لك بها مسقة فنخانا مسلما عليك يا مختار وليساخ كل ما اختارون دنيا أخرى بك السلامة من الحساب ومن الملام وطيب الزمان لي كما عيب وكماني سرمدا وبك لي كان وساخ للعرب حتى وسير بسر وجم الوارب ودمني لسياب الأمر وقادني بلاب إساب المنى واعتصم بي وعيوبي معك ويدني كل كنود جمال وجادني بكون ذا النصب السراج لي وللأمة حيث كسرات وكمان جملة الرزاق بي وساخلي بي المزاق فإنه جل على ذاك قدير وبالإجابة باب داء جدير خاطبت بالسكر والسناء اسمك أني قلالين يا من سؤال خيره إني الدلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيبوا سيدنا ذي المعجزات بالسلام بالآل والصحب المزهزه الزلام وكل الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن يقول أحمد البكي غادي قباج بأون الله الحمد لشيخ بلا انتهاء هو الخديم المصطفى والله يا شيخ آمد المكي جله بعيادة ونور كلي وارزق لنا رزقا حلالا طيبا بلا مسقة ولا سلوبا واحفظ لنا في البر والبحر معا في زاهر وباتن لي جماع طوي أمورنا بتقوى الله والزهد والمجد وذكر الله نزمتها من يوم الأربعاء سبع وعشرون على المساء آمد ليس في شهر رجب من دار شيخنا الفضيل عارفين أمد ليس في شهر رجب من دار شيخنا الفضيل العارف وبعد من موسى كلام الله maay bëgg a way alaaji fallu laay xalifa nday jàpp day bawoo mbusoobe ngir ay sëriif la fawqa nan daroobe xalifa day juboo borom mi doole aqiiqatu sariatu lay boole amaana kuy woote mbirum xalifa te boo demee diwaan turam wa dee fa barke borom Tuuba jërëjëf bu ñu mosaan toll fii dana lay jébbal kàddu gi nga ñaanal mbooloo bi ndax sëriñ Cheikh day wax ne bëgg laa téye lu yàgg boo ñëwee ba léegi baas bi rek ñu ngi koy tuub te di ko jéggulu bis bii nga xam ne ban koy tàmbali ca kër gee la ba tey jii mu toll nii bis bu njëkk ba ca biir kër ga lañ ko def nun ak sëñ Mor sàmba Diop ak Seydou Si ak soxna Asuyad Mor sàmba jàng ba pare jox soxna Asuyad mu jàng kon sëñ Seex buñ demee ba bis bi toll nii ni bis bi yokkoo nu ngi ñaan ci barkeb Serigne Fallou sa lépp yokkoo noonu te nga yàgg fi lool te wér te bañ am lu te dam bu baax a baax a baax a baax baax sa rakk ji nga xam ne mooy lamin lamin maa ngi lay nuyu di la siyaare di la sant di ñaan ci barkeb Cheikh laat Lahad Mbacké Souhaïbou na nga fi yàgg lool na nga wér lool te mucc te bañ am men dog ni nga taxawoo sëñ Cheikh démb la woon noonu ñu fekkee démb xam nañ ko toqi woo taywoo doo mer te da ngay sa alal diñu ko jox nun ñii ngir sëñ Cheikh kon sëñ Lamine nu ngi ñaan ci barkeb sëñ Touba yàgg fi loolu ci wér As Diouf nu ngi lay sant baax yow tam ku baax nga ku yiw nga ku yaru nga ku tege ci ndax lii démb la woon sëñ Seydou sant nan la baax yow tam ndax jàmbaar ga ba fi sa xarit jógee ba léegi Moodu ba tayiwoo toqiwoo sa taxawaay bis bu ne nu ngi ko yokk bu baax a baax nu ngi nu ngi sant itam sunu rakk di sunu xarit di Cheikh Babacar ku silwiise ku bëgg ku baax baakar ku am fulla ku am fayda ku bëgg sëñ seexu mi te sëñ fal rek tax kon baakar yi ngi ñaan ci barkeb sëriñ Touba nga doon milliardaire bu sëñ seexu mi nu ngi koy ñaan baax a baax sëñ tàkko yaa fi sëñ Fallu yaa fi sëñ Touba li nu bëgg mooy nga ñaanal la nu sëñ Cheikh mii maire euh, siyaar naa la maa ngi lay soo xamee nu ngi lay siyaar baax a baax yow it ku baax nga ku bëgg njaboot gi nga ah yow Bakary non loolu maa koy dogul sama bopp di nga doon milliardaire waaw loolu maa koy dogul sama bopp di nga doon milliardaire sëñ Tako sëñ Cheikh mii man nga ko am nga ko dama laa wax léegi ci biir ni la nëbbutu bi doy na xam naa la bu baax a baax jaxasoo nanu xam naa li nga man bu baax a baax waaye nëbbutu bi daa doy mbàkke sëñ Cheikh mii na fi yàgg na wér bañ am men dog man ku ma gën ngir taxulaa bon ngir Mamadu Lamin mooy sama gën Bienvenue sur Salam